94 Walf Sénégal dellu si na di leen siyaar di siyaare mboolem ki toppal 94 Walf Sénégal seen analyse chronique yoo xam dañ ko defal saa su nekk ak bitim réew jaajëfal nañ leen siyaar nañ leen way leen di topp fal 94 Walf Sénégal jaay àdduna àdduna de chaque jour bind bu tooy la te yaakaar naa ni jamono yi ci ginnaaw rek yaakaar naa dañ doon dégg rek maanaam Balla Gaye Modou Modou Lo Balla Gaye Youssou Ndour Omar Pène Omar Pène Youssou Ndour vraiment bu mel ni tu tulleeg màlle grand place yi njaganjaay yi marché yi foo daan dem rek da ngay dégg nit ñi rek di discuter ak di wax ak di maanaam daal xam nga di communiquer ci loolu bu làmb amee kenn du dégg marché yi kenn du naan est-ce que nit ñi danañ liggéey waaye loolu yëpp taxu na loolu yëpp amatul déggutoo kenn ku naan Balla Gaye ak déggatoo kenn ku naan yu Ndour ak Omar Pène léegi kan ngay dégg Ousmane ko Macky Sall kan léegi gis nga ko àdduna dafay dafay dafay dafay dafay dafay dox wala nit ñi ñooy dox ànd ak jamono jamono bu nekk nit ñi dañuy sensé waaw lu baree bari day day day day xewi am yeneen méthode yu xew léegi lan moo xew politique xale yi léegi ci politique rek la ñuy wax seen waxtaan wi yëpp politique la politique rek waaw Euh, te yaakaar naa ne euh, jamono yooyu noonu ci Balla Gaye Modou Lo wala Omar Pène Youssou Ndour euh, danga nga ciy gis ko xam da la ciy wax loo xam dafay mel ni maanaam mbir mi moom moo koy fekki politique bi tamit fi mu toll nii noonu la demee da ngay gis koo xam ne day wax ci politique ba nga naan xanaa kii moom moom dara ump ko foofu nit ku nekk li nga soxla ak li nga xam ne moom moo la itteel rek saa su nekk ci ngay nekk fi mu nii foo tourné marché yi grand place yi banc public yi. chaque jour bis bi yàlla sàkk ñu ngi wax ci ñi nga xam dañuy wax ci politique ak ñi nga xam ne ni dañuy def politique amatul leen lu leen ci ump kon loolu nag c'est parce que lan la jamono bu nekk dafay soppeeku day sensé wala nit ñi dañuy ànd ak jamono di sensé chaque jour dañuy soxla leneen lu bees waaye fi mu toll ni moom lii moom moo bees muy politique kon yaakaar naa ni euh, Sénégal mu ngi noonu kenn mun leen a natt kenn mun leen a jàpp kenn mun leen a xam li ñu bëgg rek lañ bëgg lu ñu bëggul bëgguñu ko voilà te li may wax ni ñu bari seede nañ ko ta xam nañ ko bu baax a baax a baax ndax ñii ma fi tudd nii sa jamono ci loon ci ñoom lañ doon nekk guddi ak bëccëg mais loolu jeex na